morning, everyone. Uh, this is Sahel Network TV. The morning so, uh, ah, jani mbe program wonyum kumasa la dorong anya ah, ngambe kontondiro kela ando me kontondiro follow la momin na uh, wala mo my beautiful sister um, sister Linger um, in this noble platform with me. Uh, no you nala sa sense bahna. I love the outfit. It's definitely beautiful. <laughs> gis nga ko yow lay jàppale yaay suma doomi ndey <laughs> Ah, a sahel network tv lan dorang allah monen so programme momi yalan komin konkana fale everyday from monday to friday a ah, bi aliyaji lay an tolla ka programme fale nang a ah, bi mbe añen ajola to añen banjul nga wala fo a de capital anon bi fanan añen ambe kibarol nafelale mi yalan komin ko aɓe dendin jata kende ya bundala aɓe dendin añen añen politico la anen fanan a oda social issues mi yalan komin ko isode strenen inde inde gambia woto sahel network tv añen tol nata janna ya to put a smile on your face anin fanangan ɓe luntan kumma ba fanan sotla luntan o mi yalan komin ko atemo national assembly membal te mi yalan komin ko dependano a ticket ñing atatan walla bari a ñinga banjul central kol nata nata pour que la carte wo di a diala praye represent a the national assembly for the next 5 years a yalan ko men ko he is no other person but a abdoulaye anjay on that note am na bossé um abubakar bachilay a ñe kontone an anti umi i greet you sister linger a fogna hanga ma stop fini hanga bi ci kanam assalamu alaikum waki adina worngal kep ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ndokkeel leen ñaanal leen yàlla waaye di ko sàkku ci yéen ah, maa ngi jiital nuyoo bi nag ah, Sister Black ñu ngi lay nuyu di la ziar jànq di la wax sa tay baas lan la. gis nga ko de ba ah? gis nga ko. ah cëb ëpp na macha allah ni nga takkee sa musóor bi sax moo ma neex. déedéet kay. noo non bul wax dara suñu demee break mu takkal la bu mel noonu. xanaa neex na. <laughs> Euh, mu ngi noonu euh, kon nag euh, maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu ki nga xamante ne moo nekk ci machine bi di broda Abdou ñu ngi koy nuyu bu baax a baax macha allah <laughs> di nuyu képp koo xamante ne mu ngi liggéey Sahel Network ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di ko jiital nuyu bi ci Mr Bathily <laughs> ñu ngi koy nuyu bu baax macha allah di nuyu anti Oumy Uh, waaye tamit dañuy doxantu ba fi nga xamante ne moom mooy State House nuyu His Excellency président Adama Barrow uh, ñu ngi koy nuyu bu baax a baax macha allah di nuyu uh, ñaari soxnaam yi waaye tamit di nuyu njabootam ak képp koo xamante ne mu ngi liggéey ci ginnaawam. doxantu ba ci hôpital yi di seet di ñaan yàlla foog seen bopp delluwaat lañ ci seen sago kazaalika ñu ngi dem ba fi nga xamante ne ñoom la caabi féetee ginnaaw di ñaan yàlla génnee leen fa waaye buñ def dara lii tax ñu delluwaat fa ñi nga xamante ne ñoom ñooy waay jiitu yi ñu ngi ñaan yàlla oyofal suuf ci seen kaw jéggal leen seen i bàkkaar yóbbu leen àjjanay fi daw si barke alxuraanul karim di leen wax ne waat dañ ak yéen ci suñ beneen émission lépp nag fii lay amee ci Sahel Network suñ ñëwee rek waxtaan ci li nga xamante ne moom mooy politique Euh, waxtaan ci business waxtaan ci social mhm. euh, waaye tamit euh, ñu am gan gu tedd tubaarkàlla macha allah mu nekk a very close brother to me ko xamante ne daf ma sa sërkate rëkkuma mhm. muy Abdoulaye Ndiaye known as Mam Laye mhm. honorable sax laa war a wax he is no more Abdoulaye but honorable Abdoulaye Ndiaye macha allah ñu koy ñaanal yàlla oyofal en bi mu jik ko lool tubaarkàlla ah sister Linguère xam naa ne waaw dëgg dëgg comme xam nga a ah, wax bi xam nga neex na a ah, woto ñi nga fo man sata lase ñing a sasa farla a ñing wuli kan a mol min fana yalon ko min koy ñing tolla be kasoto ñing fo man sata lase e sutura ñing a ye tanka ye kanda anem fana ñing a ibe fitiyo min kono fo ñing fase bondige anon dalilo min fana ya sabu ñi tata je fo man sata la na ye bo e bondi wo kono e kana muruje ko tanke a woto a me banko ñaton ko konton na anen a banku do pula gambia din kendo wo ba ñing gambia an dinkende men yin banko kan mi yalan ko min ko nyaa gambia na je a mari konton na fulay sahel network tv a woto be mun kala dorong a wi have a short commercial break a ni murtanan dorong na luntan kuma basoto mi yalan ko min ko he no other person but honorable abdullahi anjay uh, honorable abdullahi anjay from banjul central but a patriotic citizen uh, who is ready to uh, move the Gambia, you know, forward. So stay connected. We'll be right back. amin dorong abi ngalun ta mabba min sotonna plateforme o to ka famiya komin ko ade monen so banjul the capital uh, brought to you by sister linger and myself the black queen uh, ah, ñing aliaje le ñinga luntango ñim felenting ñinga felenting a sirin dala e ka famiya komin ko honorable uh, abdoulaye njay uh, bari jama ka kumandi ñinga mam layle la bari nga be message yo sen lawo mole ka foye komin ko his honorable now no honorable no abdoulaye njay no no wow. mam layle no, no more, more mam layle mm -hmm. exactly yeah honorable honorable wow na gars yi xam nga am si loolu noonu xam nga ñu ne honorable buñ fa teg xam nga Abdoulaye sax wala xam lii waaw a message xam nga Black Queen and Sister Linguère right yeah a ah, woto ñinga nga lon tan ba min soto gendoro ñinga felenting ambe min kala a ah, wala mo a ah, ñinga ambe may ko di lala la ñinga mol kontong a min yalan ko min ko ñinga to la ba jube kan a ñin a bar gandi wodong a ñin ba fly ko ko a min ko a ñinga a naye interview soto non ah, before the parliamentary election andong yang uh, akamunta ko a ah, di dalam, satu fam duwa jabitala manke kuma akamunta ko awdo ah, sister lingera sun ganango waaw uh, mu ngi noonu uh, dañ koy wax dalal ak jàmm mhm. ci sa xel network ci sa kër ñëw nga fi nga xamante ne fi nga war a ñëw ñëwoon nga fi am mhm. ak ñun waxtaan bu ayib ñu ñaanal la mi dara mhm. def ñaan antu loolu dañ koy sante yàlla di la wax once again congratulation yal na la jikk yal na yàlla oyofal en bi yenn na nekk uh, mbir moo xamante ne dangay wax ne yéex naa cee duga <laughs> uh, yow moom nee naa la man uh, li gars yi di wax man gëmuma loolu <laughs> man président sax xeeb naa ko pour yow <laughs> li tax ma koy wax nag man maa ko xam Eh, dafa am mot bo xamantene ni nii macha allah yàlla daf ko taxañ ci sen wa kër bul ma dog man sumay wax ci Maulana Cheikh Ibrahim Niass du may bëgg ku ma dog wax nga nga ma ah deet honest daanu loo de dang ma siy boole boole ma si nga du ma ko nangu du ma la may dara dang ma siy bolé ñika black waxal man ak black man ak black waaw ok ok euh way way suma waxé xam nga lu bëgg nga understand Whenever I say I, uh-huh. I mean you and I. Okay. Whenever you say you, then you have to look at me. I. Then you have Man, to look at me in the eye when saying that. There is no you, there is no me. It's us. And I want you to understand that. Okay. This is why I always talk like that. Okay. Wow. So Understood. Why dang my horse si put bot na kanga ma na ya She's just too much. No. kilo lu tax mu Anyway, mbiri non la demé kon nak mam lay ñu lay wax benen yoon dalal jamu jamm network. Duñ def rek rek jox la mic bi rek nga nuyu wa Sahel Network euh, nuyu adina ñi nga xamantene ni ñom ñoo nekk di setan euh, ok euh, assalamu alaykum wa rahmatullah. euh gannaaw bu sante yalla julli ci yonente bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jital nuyu gi rek ci kilifa kër gi Sahel nga xam ne mooy Mr bacheli ak natangom ñu andal bokal bokkal gi yëpp. Eh, di nuyu di ziar Ndella eh, ak ak suma sista Black nga xam nyom nyom, ñoom mhm. ah, du yëfi ya interview bi rek ñoom suma ay sista suma ay ñu ma jege lañ ñu baax lañ wax dëggaan na yàlla wax dëgg te gis nañ coppite ak eh, sopité bi nga xam def nañ ko biir Sahel Network wax dëgg seen programme bi ñëpp soxoo ko di follow man tam ma nek a very keen follower sax wax dëgg ba ya yéen suma programme rawé sax dama dem ah, kër suma frié sax dem si internet bi pour mëna a si programme si waa dëgg neex yàlla mu doon lu am solo kon na ah, dafa mel ni ah, suma kir laa ñëw rek di gërëm di ziar tam fii wa suñu seetaan yëpp. Euh, di wax ne alhamdulilah dal naa jàmm comme ni ngeen ko waxee yaa <laughs> honorable ah, wax boobu noonu mu nekk xam ah, nga lu am solo ah, waaye definitely ñun da ñun daal xam nañ ne balaa ay election bi. ñëwoon nga Sahel Network a xam nga ñu waxtaan lu bëri. and your intention was for you to be given the chance to represent the the people of Banjul Central. loo xamante ne comme xam nga yàlla def na ko. Mm-hmm. léegi xam nga you are inside you are in the parliament. You know, uh, what do you have to say to the, uh, the people you know, are, are the people who voted you in to represent them uh, uh for the next five years? waaw uh, xanaa uh, ñu gën a dooli sant yàlla rek waaw mi nga xam ne moo def everything mu possible waaw dëgg na yàlla um, parce que comme nu ma ko waxee woon fii last time bi rek mhm. ku ñu waxoon two three years ago ne xam nga rek will be into the political arena mhm. daanaka dama laa wax ne ah yow loo wax moom fen la waaw mhm. waaye yeneen circumstances day change paré comme ni mako waxé rek rek démé bé euh sa ay nit yi nga xamanténi ni boka ñom everything sa community ñu am yakar ci yow euh ah, baxna sometimes nga day xolaat sa bopatam tam pour xol lan mo wara tax ñu am dat yakar ba paré ndax yow nga ne mën nga deliver ci lolu nonu so comme ni mako waxé won rek lolu la def ma xol suma bop bu baax te alhamdulillah bu ma si duggee daal aw ma si réccu rëccu mm-hmm. ah, ndikam yalla mé nañu ci ndam alhamdulillah rabbil alamin ah, léegi ñu nyungsi bir, so all the things yo xamante ni ñu ngi ko things si nga xamante ne ñu ngi ko doon ñaxtu si biti yëpp dinañu am opportunity pour mun koo ñaxtu si biir fañ ko war a ñaxtoo so da ngaa gis ne képp tam koo xamante ni amoon na dara li nga xamante ne lu ko soxaloon si wàllum gox bi si wàllum réew mi dina am opportunity bi man moom am very open pour mun a ñëw si ñun ah, wax ñu ko su ko defee ñun tam ñu mun koo wax si pencum ndawi foofu noonu waaw so nekk na opportunity boo xam ne moom wax dëgg yàlla nañ see def a lot of change suñu society but in Gambia as a whole so sant dañ ko sant definitely yaa loolu daal mu nekk loo xamante ne important na trop ah ñun ñëpp xam nañ ne a ah, you are a hard working a young ah, gentleman ah ki nga xamante um, a ah, you have been doing great a balaa um, um, the people decided to uh, elect you in to represent them in the parliament ah waaye yow sax xam nga ne. amoon nga liggéey waaye léegi xam nga am nga liggéey bu mag. bu rëy a rëy waaw liggéey bu rëy nga am ah, lu tax ma wax loolu noonu ah, because um, am amoon na keneen ki nga xamante ne xam nga mu ngi woon foofu noonu hmm. ah, mu serve the Banjul Central people in the parliament for um, some years. Um, léegi xam ñoom xam nga génnee nañ ko foofu noonu ñi ne xam nga yow lañ gis. because development hanga buga sohla fofu nono you are the right person ki nga xamantene hanga you can bring that or you can support them uh, to ensure ne comme hanga ñu am lolu nono amba ah, li hanga yang ko sentu bu baax comme hanga yang ko um, holat in a, uh, a different angle wow, wow. De de definitely definitely um actually um uh, liggéey moom uh, am na yoo xamante ni di nga ko si xam si liggéey bi mm-hmm. am na yoo tam moom daf laa kumpa si lo fa waaw moo am um, even suñ uh, buñ daan campagne ñun liñ xam rek lañ daan wax duñ daan uh, make sure ñu dañ dee make sure we are very careful in terms okay. of what promises mm-hmm. dañ dee make pour nit ñi uh, parce que xam nañ liggéey parlementaire lan la mm-hmm. utee na ak liggéey councilor o oda liggéey yoo xamante dañoo ñëw yene di promise nit ay yu rëy mm-hmm. ay dañoo defar ay tali ay kirib garab yooyu noonu waaw ni yow ay lawmaker yow da nga ñaxtu ba pare bokk si ñi nga xamante ni ñooy gestuwaay yi nga xam ne moo gën si réew mi yaa ngi gis so ñun dañ fil ne am uh, ñu fa ñi ñu fa tegoon si wàllum liggéey googu noonu dañ si xaloon a am uh, tuuti uh, manqué manqué ndig dañ am na mbir yu bëri yu génnoon yoo xamante ni am askan bi la gënoon a njëriñ ñu gis ne ñoom gis ne taxawuñ si daal ni ñu si war a taxawee loolu gënoon a tax sa ñun ñu jóg so comme ni ñu ko waxee rek ñun tam we like to learn from the mistakes of others waaw paksi am buñ jógee sa bokk nañ demoon nañ si kër yi di laajte di waxtaan ak nit ñi pour xam exactly ñoom uh, in what way la gaay feel la they are not represented so ñun tam su ñëwee comme que ñëw nañ mhm. dinañ try ñun tam buñ uh, ñun bàyyi xel daal bañ a waaw ah, uh, dafa mel ni comme yaa su ma déggoon sa wax bi ah, nga ne comme after when after the swearing in ceremony mm. ah, jotoon nga waxtaan ak some of them pour ñu explainal la like comme xam nga ñoom how did they feel na comme xam ah, they were not represented in the parliament properly mm. su ko defee xam nga yow tamit xam di nga xam ah, ah, how to mm. yeah um, noo koy defee and then you know the right steps to take mm. ah loolu dal mu nekkoon loo xamante dafa important trop because communication xam dafa important you know between you and the people ñi nga xamante ne xam nga fa teg because hanga, without them hanga, you, you wouldn't have um, uh, got the opportunity to be there so uh, to communicate with them lo dafa nek lo xamantene dafa important ah sista Linguère am na lu ma ko bugg a laaj léegi nii Banjul di capital lañ wax <laughs> Sahel Network TV sax nga foofu la nekk ah ñun daal xam nañ ne comme nga indi the country right now am na ah, wax bu bëri boo xamante ne comme nga so many people are talking you naw politicians and you know xam nga ñu ngi wax lu bëri because ah, history xam nga moo am indi the and you are part of the people you know for the first time in history uh, the, the, the incumbent uh, doesn't have any uh, seat yeah. you know as far as uh, the, um, uh, the parliament is uh, concerned the yow independent candidate so and um, um, um, amoon na ay uh, information was from somebody who is the president's right hand um, alternate statement bi ne comme xam independent candidate for the NPP. <laughs> so uh, what do you have to say about that and you know. <laughs> well, uh, first of all, <laughs> we'll clarify, uh, I'm not a member or a part of NPP. Okay. The NPP is a political party of its own. Mm-hmm. Uh, Come no independent party. yëpp nekkee Gambia fii nii. Mm-hmm. So um, uh, man I'm a citizen mm-hmm. of Gambia. I'm a resident of Banjul Central. I'm a representative of Banjul Central yaa so da nga gis ne tam election su joye am ku nek rang day am choice am na ño xamanteni decide nañ pour dem taxawal UDP ñenay GDC ñenay um, different parties ñenay NPP based on um, yow candidate bi ben la uh, eh, ida feel nga ne parti bi mo la mëna jox wét pour nga mëna duga o da ngeen boka xalaat o yoy nonu ya nga gis so man nak am ak suma ay natango tim anandor dañ dem ba gis ne um, ñun we are very young and we are new in the political arena ñu gis ne political space bi fi mu nekk mi ngi xala polluté tuuti soo ñu looloo taxoon ñu ne ah ñun de fi mu nekk xalaat taxu koo méngoo ak xalaati parti yi nii so waaye noonu ñun ñu jéngu ñu taxawal suñu boppa ñu jéngu ko maanaam yàlla mën nañoo may victoire nga xam ne suñ duggee ñun dinañ mun a am teg suñ own agendas mun a set suñ own programme yoo xam ne dina méngoo ak ñun suñ suñ xalaat fon naaw loolu nag taxut minut ne ñun opposition lañ oo gomuñ benn parti o non non dañ di say rek bu taxawal suñu boppa Uh, it's not like um, loolu daf dee nekk wax bu yaaxu ne independence yi um, opposition lañ oo independence yi ak yooyu noonu oo am na ñuy wax ne tam am na independence yu bëri itam yoo xam ne tam they are NPP to be honest. Uh-huh. waaw parce que am na ñoo xamante ni they were vying pour taxaw under the party ticket. Uh-huh. so mu jéewuñ leen a jël. Uh-huh. so kooku noonu technical yi da ngaa ne NPP la rek so kooku su duggee sax most likely uh, pour mu um, switch ranks moom du nekk problème parce que is still part of that that party waaw mm-hmm. waaye ñun ñu ñëwee since day one we've we we've come as independent candidates mm-hmm. we are not party affiliated waaw affiliated ak any party Um, so then are you fully prepared, Honorable Abdullah Njai? Yeah. Are you fully prepared for this great battle that you are about to face, or that uh, <laughs> you have started facing already? Are yeah, you yeah. prepared? Yeah, yeah, um, because so duge see politics mom, Come -hmm. comme numa la ko na before ma duga, um, mang non wé pour xool lu bëri because am na certain things yoo xam ne foog nga change ko sa boppa mhm. comme bu ma ñëwee si first interview bi xam nga euh, Ndella mu ngi ma doon laaj mhm. euh, astu xam nga rek moom nu ma xamee ak politique bi nu mu polutee ak yooyu noonu nii <laughs> waaye sooy dugal si dara tam foog nga ajos sa boppa mhm. waaw foog nga ajos sa boppa nga train sa boppa si yu bëri um, understand nga mentally mentally lu gën a important mental mental uh, mindset bi foog prepare for so many things um, so many things will cross your way you have to be strong. Wow, definitely. <laughs> so I gisee say, Malang the question because um, uh, wax bi tamit xam nga bëri woon na. Uh, balaa um, uh, nit um, dem si pool be hanga to decide the people who will represent them in the parliament. because I'm on a statement boo xamante hanga. I nga kenn koo xamante ko kuta met hanga was so close to the president waxoon na fi wax boo xamante ne mu um, electing oppositions or oh, because hanga um, si um, NPP it is all the same either independent or opposition is all the same because you are not NPP te yow xam nga wax nga uh, it will just be like you know uh, um, uh, bringing comedians you know in the in the parliament because their presence will not be felt so you are ngi independent candidate nga xam si parliament so um, ndax the dafa nekk loo xamante ne comme will will disturb you in another way around because many believe ne comme they need the support of the incumbent you know um, pour at least uh, you muna achieve some of uh, you know uh, the goals that they want to achieve um, as far as their um, um, work is concerned. waaw um, yaa ngi laajte lu am solo. Mm-hmm. so da ngaa gis ne um, soo gisee um, du ma de um, uh, go with that notion ne independence à opposition. Mm-hmm. Uh, independent mooy koo xam ne dafa neutral rek waaw understand nga. Mm-hmm. so man dama ko dee every platform bu ma dem ma ne leen ñun um, uh, parliament is an oversight body boo xamante ni liggéeyam mooy pour mu um, keep government accountable mm-hmm. understand nga mm-hmm. liggéey parliament mooy ñoom you are doing policing mm-hmm. towards the government yaay xool fu budget bi yaa yaay um, determine budget allocation bi fu budget bi xaalis bi di dugga ak yooyu noonu yëpp so yéen da ngeen a jàppale nguur bi si faana bi pour make faana googu pour make sure ne ñoom doxalin bi foofu noonu mu ngi dem waaw mu war a demee understand ga so anything loo xamante ni lu gën si askan bi jógee si exécutif bi dama ko dewa every time suñ loxo mo ñëk jox ci ko pour mu dem trou parce que ñëri ngi askan bi la yépp ya, is for the benefit of everybody yaa ya, gis so comme um, nit rek nit tam mutut sometimes executive bi dara mu na fa jógee lo xamanteni is more partisan understand nga then development oriented daf day mu na happen parce que yëfi politics lañ nekk xam nga so yu mel nonu su ñëwé tam you have foo nga scrutinize ko bu baax ya. pour hol is fit for purpose ndax lu ci opposé lolu nonu moy moy askan bi ndax dafa ñëri just a selected few ya nga gis so lolu nonu si suma liggéey la bokk as a parliamentarian it's not like um, you're an opposition or anything you're just doing your oversight mhm. function xam nga. waaw ah, ba pare ah, believe naa sax ah, waaye comme waaye pour yàlla bu ma la dog waaye pour li li nga wax ni ñun ñun we a minority. Mhm. independence yi ak mhm. yeneen opposition bi we are minority lañ foofu noonu. so still um, incumbent bi moo moo ëpp am am upper hand du am absolute majority. waaye moo am upper hand bi. so still dafaa nekk a huge huge batul so certain things su ñëwee mu jógee si exécutif bi te mu nekk loo xam ne is debatable comme ñëpp xool ko ñu gis ne daal ah, am na déficit tuuti. am waaw waaw <laughs> eh, macha allah ah, di nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci Facebook bi. wax naa leen yéen a ma gënal Black Queen lii laa wax <laughs> ah, ah ku ci mel ni nu Sela ñu ngi koy nuyu Mohamed thank you so much for watching. Eh, ya bo yo tamit yo nañ torop ci and bu bi nga xamantene ni nii eh, ko and ak ñi nga xamantene ni ñom ñoy Sahel Network eh, kontan nañ ci yeen ñu ngi leen ay sante di leen gërëm tay nak ñu am gan gu tedd gan gu mat gan gan go xamantene ni buñ ko amé dañ ko wara teral yek ne mom ñu ci ñum dem teral nañ ko waaw loolu mom loolu du ka ni ko ñu defaral ko breakfast ah. Euh, mu ngi noonu euh, kon nag euh, duñ def lu mooy rek ñëw ciki nga xamante ni mooy gan bi. waaw gan gi noo def. <laughs> maa ngi fi <laughs> gan gi dalal ak jàmm beneen yoon. <laughs> ziar naa la ziar naa la bu wér. wax nga dëgg de léegi moom nekkatul la ziar de. waaw delloo ziar bu wér. ziar bi moom munul ñàkk ñëw moom macha allah waaw moom mooy jiitu moom. waaw ziar bi moom il faut mu ñëw ah. Eh, honorable dalal ak jàmm beneen eh, yoon ci Sahel Network eh, di wax viewers yi gis ngeen ko ñun wax naa leen toujours lépp lu lent ci Network ndax fii lay honorable Abdoulaye Ndiaye a ngi nii toog dégg ngeen kàddu yu mucc ay bi nga xamante waxtaan ko ak ki nga Sister Black Queen man nag du ma def lu rek ko a very small question small question. Small. <laughs> Yeah. journaliste yi moom seen small moom duy small de yow ma no no non ñoom seen small moom laa la <laughs> waaw uh, honorable uh, nga nekk nit koo xamante ne nii uh, ku fonk sa bopp nga ba tax askan bi nga nekk ñu fonk la tànn la ne la nga taxaw nga dégg seen ndigal ci taxaw as independent candidate gannaaw bi nga xamante ne taxaw nga ñoom tamit ñu sàmm seen ngor sànnil la yàlla def nga win euh, waaye ci biir loolu euh, ñu ngi dégg romos di wax ne euh, fi nekk nii it seems like ne da nga bëgg turn into udp mu nekk wax boo xamante ne mu ngi mu ngi raam te olof day wax ne lii raam ci ñag bi la jëm te xam nga ne ñun waa Sahel network amuñ len loo xamante ne ñu ngi koy laaxal laaxal dañ koy dañuy jaar ci digg bi te man ak yow moom du politique moñu bolé bu do to nak mayek bi sax mën na la ko laaj fenen fo xamantene du mayek bi motax ma gëm né luma lah la wow laaj la waaw waaw té bëgg na nga léral ñu ci tuuti dal ndax yow ah, da nga bëgga ah, join UDP wala naka la fa démé waaw man loolu gi suñu tammi campagne bi maa ko dégga it was lo xamante mi ngi dem round parce que waye dama dé onastan rek yi fi politics la ya nga gis parce politics da nga am opponents so yeneen suñ am wëree wër wër wër amuñ dara si yow rek foog ñu am something suñ create yoo xamante ni dañoo dañ ko use pour déstabiliser la ak yooyu noonu waaw ba pare xam naa lu lu gën a am lu gën a tax loolu mooy man am very open with everybody am man suma campagne tiim bi su ma la waxee am na certain people yoo xamante ni they are part of NPP they they are supporting me ñoom ñoo ma ngi ma jàppale ma based on ne dañ ma gom as a personality ne maa mën a def liggéey bi and they are part I have friends from the UDP. I have friends from GDC. Understand nga even uh, GDC i am na um, personnel yoo xamante they are very close to me jàppale and Masuma campaign campagne throughout my campaign period Be understand so man am open to everybody understand nga man when it comes to partisan aspect man am pro development loolu laa so so soon, nekkee man danga ma nekk a certain party understand based on your foo bokka nga ñëw gis maa fen gis maybe ma share moom a project or or something xam di nga misunderstand because man comme nako am pro development anything lo xamne is for the development of Banjul regardless of party bo joge man am open pour ñu liggéey ci lolu nonu ya ngay gis waaw so maybe tam i don't know maybe dañ ma day gis ay nit UDP understand nga bari na fa ay harissa ay natango no it's, it's a rumor um, it's, it's been going on even during campaign bi yeah even during campaign bi gang non wax lolu ah, mu nek mbir mo xamantene I don't know I don't know I don't know fim nek leer na ci sen bop ha ah. ah leer na ci seeni bopp yéen ñi nga xamante ne nii ah, yéen yéen di ñuy wax ne sa dama dem NPP ngi ah, ah. ñuy wax sax mu honorable mais ala May the Almighty Allah continue to bless you and uh, Amen. make the work easy. Amen, Ya Rabbi. Amen. Amen. Antumana, thank Amen. you so much. Amen. Thank you so much. Amen, Ya Rabbi. Waaw, lii moom ñaan la boo xamante ne ñun ñëpp bëgg nañ ko. wax dëgg yàlla kon ñu ngi ñaan rek yéen ñi nga xamante ne yéen ay seetaan ida yena nekk si live bi wala after ngeen a seetaan ngeen ñaanalal ma suma broda bi ñaanalal <laughs> ma sun broda bi I told you benn lañ when I say I it's both of us come on you must inu hada yaa majnuuna wallah suma gaay kon nag ñu ngeen bokk ñaanalal ñu xooluloo ma di tama laa xaw si bii sun broda bi waaw léegi dégg nga ma gis nga ma tamit. okay uh, waaye in the other way round uh, people are also saying honorable uh, kilifa nga ci jamono yi nekk nii léegi kilifa bu mat kilifa nga léegi nag ndax yaa ngi sóoraale this question I think it comes from me de sóoraale Taka Jawara. waaw waaw ñu ngi si ñu ngi si. hey si ñu ngi si very soon. dama very soon yaa nekk a njëkke allah. man dama ne ma xew bu moom moom de. <laughs> waaye xam nga loo kii laa dee def. non ah, yow bu bu takki góor dañoo def rek. takki góor ah, from your ah. side but from our side. non def ba mu baax. man waxuma ko de waaye laajal ma ko <laughs> pare na wala. non pare nañ bu yàgga pare nañ bu yàgga waaw. <laughs> affaire ba ma téye woon bi rek. ah ok macha allah loolu sant yàlla yenn na yàlla xeeb dolli. Ah, but in the other way round gannaaw bi nga xamante ne we ask all those questions yoo xamante ne I can say. Ah, fii suma kër la you can ask anything. waaw ah, mu ngi noonu bëgg nañoo xam rek honorable Abdoulaye Njie lan moo nekk sa first objectif boo xamante ne nii yow ci loolu nga bëgg a jublu first of all balaa anything else di comme su ngeen demee ba commencé liggéey and stuff comme ci lan nga bëgg a njëkk a yëngatu sa tund yow. Okay, um, uh, xam nga ñun um, parlement bi dafa ni représentation su te représentation moom uh, yow nekkuloo di wax si sa kaalaama yow waaye da nga war a jëlee si nit ñi nga yóbbu foofu noonu nekkuloo doo wax si sa coobare yow so da ngaa gis ne am um, foog ñu créer that accessibility njëkka pour nit yi di mun a ñëw di mun a isi seen ñaaxtu waaye ñun tam périodiquement ñuy mën a dem di leen fekki di mun a jëlee si ñoom pour yóbbu so comme suñ campagne promise rek ñun xam nga moo tax dañ lay wax si looy dugga rek nga waxon nako fi ci sahel network bi suñ first interview bi baxna nga am lula guide fo nga am agenda politician so duga si dara fo nga am agenda lula guide so yow agenda bi nga xamne mom nga jaay nit yi nonu mom la si dess nit yi la dess ndax ñom bëgg nañ agenda bi o fi lañ ne dañ bëgg leneen lu gën lolu so ñun locally nit yi um, gisoon nañ ci agenda bi gaay appreciate ko be tax gaay fal ñu ñu duga so ñun agenda bobu right now moy suñu road map moy suñu guide so suñ four point agenda bobu lañ nekk di toppa understand nga so in terms of representation bi am nga um, accessibilité bi ski si suñ mbir so nañ try suñ first step lu ñoo def mooy amal constituency office boo xamante ne dafaa yomba pour ñi mun ñoo access ba pare anybody koo xam ne am na loo ñu mun a yokka wala loo xam ne layguloo ko suñ liggéey wala nga fiil ne suñ liggéey am nekku di dem nu mu war a demee wala yooyu noonu di nga am opportunité pour ñëw am nga waxtaan ak man teg ma si yoon wala su nekkee am na lu maa def loo xam ne tam mu ngi teg tegu si yoon tam nga gën ma see ñaax gën ma see yokka I think we owe that to the uh, electorates so suñ loolu la moo nekka Um, uh, then um, maa ngi work tam um, on suma working committee bi because foog nga am development committee boo xam ne um, ñoo laa jàppale throughout parce que xam nga soo bàyyi xel waxoon naa ko si interview bi mu ne problème bi suñ uh, li fi nii electorate si uh, elected uh, member si mooy dañ la dee pousse ba si biir rek ñu bàyyi la mm-hmm. soo nit soo ko bàyyi si sagoom nag moom boppam la faa nekkal waaw soo comme ñun suñ suñ promises yëpp ñun dañ ko jël step by step daal. waaw su da ngaa gis ne comité boobu noonu laay set. den ñooy ñooy ñooy ñooy liggéeyam man throughout suma five year tenure bi incha allah rabbi waaw. Uh, Mamad Diop thank you so much for watching uh, Sahel Network TV. sant ak ngërëm ñexel na la bu baax a baax dañuy delluwaat ci ki nga xamante ne nii moom mooy honorable. just have a short commercial break uh, um, because xa just gis na ne comme xa nga waxtaan bi xa nga mu ngi xala am um, um, uh, yàgg tuuti uh, su ko defee xa nga waaw ñu may honorable xa nga mu relax tuuti because he is fasting you know we cannot just you know push him tv len dorong allah len so programme a bi ali jele ngalun tan kuma ba men tale jan dorong a nabe kacha soto kan kacha mi yalan ko min ko nyanga be dending a mi ta wulindi a nyanga pour que nyanga nyanga la mo represent nyanga parliament to anim fanan nyanga man kala tundo mol damati a nyanga bari nga gambia be a because wo mol be jele nyanga pour ka jube nyanga banko bitano la nyato le ane mo simfa dal la nyanta pour kata nyanga yo ko min ko nyanga gambia sa fon to no karo be la wala nyaabe nyama a woto a ñanga honorable ah, abdoulaye ah, ndiaye ñanga tamo gambia fondinkel timi yalan komin ko ñanga ko independent candidate wala mati ah, ñing safo komin ko biribe kay ñing carte o dilala wo taymo ñanga ñing independent o wala mati a so ñanga rumos be siarin ne ñing dol ba fo kan min ko be join la ñanga npp le dol ba fo la min ko ñanga be join la udp le ako ñanga wo mo molla kuma kan dornati ani ñanga nem politique diamo bayri mol ñanga mol wo kay ñanga ton dum ibe min fola ñanga yewo sotole Eh, ñinga ika fo domata la bari nga ñing fo tawa fay ñay ko sutale sa ko ni nata ñinga politique wala karola fanang a wo mo fenete mi yalan ko min ko ati aja ko min ko mo politique diamol te anum fananga nga ñinin kanun diamol a ñing a ñinin karol la jang ñinin karo min kummata baka bayri nga banjul a ñinga tundo kan min katan na capital city di a first time in history a ñinga ñinga president o min be siri nga la party a mangani siran kilin suta jang atadu mo molti mi yalan min ko independent candidate o lan ñin atarta o mol na mol mi yalan min ko yewa mol ñin boyndi la a woto ñin ako ha ako mo fennati mi yalan min ko it happens uh, for the first time uh, in history andum ñin ngamera ñin mol laftala wala ñama fana andum fana ye jikolo soto ñin ala woto wala ya sabu ya sika ya tombon ya keje bot a ñin be ñin mol mi ya tombon fana nin banjul kolbe abe promise la min ko ñin ñin ñin ba make ko min ko dalilo mi ya ya sabu kita ala nyang ya tombong akana disappoint in any way ako banku doku o nyang ata pareta pour ka wala ke ando nga ba by all means yang nyang pra pra ka ne disappoint ako andum fanang ako nyang communication no mo fellete mi alon ko men ka kum mata bakele ata nala mol tema woto ibe kata ko dango be ke kan na pour ka jube ibe office soto no la dami office mi yalon ko men ko ata nala mol nyang safo ko men ko tundo mol isinano jela ya kacha yela problem mol na fe nan anim fananga kuol mi yalon ko men ko ya fil kolen ko walan solution on ti nyen isa tiano ño kan bayri nga he cannot do it alone he is there for them so together they can do it great sister lingeer li la don wasi fa nga mën haral xaaral ma somaraay sanga tuti su ko defé ñi nga xamantene ñom ñoom nga soosa lañ dégg xa nga gaay guñ olof ñu mun understand because the conversation is getting interesting interesting in there at om amuta my phone ngay ko mfu may ko la ba ni ka muso na aben bulo la sai wo kai nga mutale anu ma mutale ken deke ay mba mutale ay bamba he ni ala ni ka ko aka diple ala tala ni ka ko ma sane ya wala ken na ye ni ka ko fo doron ka jahal e ka jahal o do ni afo mbe faral ah mu ngi nonu ah, honorable ah, deg nga ah, kaddu yi nga xamantene mom lañ doon waxtane rek ki nga xamante ne nii moom mooy Sister Black Queen mu ko doon faram-fàcce ci li nga xamante ne mooy kàllaama Mandinka macha allah xam naa suma mbokki soose yi kontaan nañ trop parce que moom buy laaka soose day slant si non wala la waaw bi ko séeréer la ci yàlla séeréer bu séeréer boo xam ne déggu séeréer la waane la def man kay nii sax la dégg naa ko wax ko ko gars yi dégg. ci njab kon linguiste nga nii. waaw ah. ma ko woon. like seriously anyway dañuy delluwaat ci ki nga xamante ne moom mooy honorable rek dégg ngeen sànq li ma ko laaj ah, wax na ne ah, dafa bëgg a def li nga xamante ne nii moom mooy ut bureau daanaka noonu nga ko expliqué ut place boo xamante ne nii. ah fa ngay nekk say naataango di la fa fekk si di la joytu li nga xamante ne nii ah, ñoom seen ah, loolu mooy seen jafe-jafe soo mënee de soo demee ci parlement bi ah, yow tamit nga joytu leen ko xeexal leen ko bañ mën la koo defal pour sa waa gox waaye gannaaw loolu honorable Abdoulaye Ndiaye bëgg naa laa laaj li nga xamante ne nii moom moo lëmbee àddina bi juróomi nit ñi nga xamante ne nii Adama Barrow fal na leen foofu ci parlement bi bëgg naa nga wax ma yow naka nga ko gisee parce que tamit euh, speaker of the house ñun ñëpp ëmpale wuñ ne sësoon na rek ki nga xamante ne nii moom mooy former président bi Yaya Jammeh euh, député speaker of the house tamit kazalika mhm. his excellence jël ñaar ñaari ñooñu noonu falaat leen ñu nekk njiit ci parlement bi yoon yéen waa parlement bi naka ngeen gisee loolu euh, waaw waaw xam nga am bi moom dafa mel ni ñaari xaaj la waa am na xaaj boo xamante ni ñoom am na nuñ am na niñ ñëwee si parlement bi su am na beneen xaaj boo xamante ni ñoom minorité lañ so ni sen gis-gis ak ni ñoo gisee mbir dafa uti ya nga gis waaw so am uh, am na mbir yoo xamante tam uh, loi moo ko may président bi understand nga si walum si walum ñi moo taana ak ñi mhm. moo nominate loolu si constitution bi moo ko state yang nga gis so loolu amna? na waaye dafa am certain things soo gisee am na yoo certain things yoo xam ne nit yi ñu ngi joytu is based on a moral setting mhm. understand nga dafa am yoo xamante ni dafa moral yi daal nit yi ànduñ si ndig am na ñoo xamante ni seen jaar-jaar nit yi rafetlu luñ ko understand nga comme na ko waxee through a régime bi ñoom euh, they a part of loolu noonu am na mbir yu bëri yoo xamante ni mais bi seen rëcca rëcca la xam nga loo xam ne nit yi apprécié tuñ ko am na am nañ ñu bari ñoo xam ne foofu tam seen doxalin la nit yi laaygu toon ak yooyu be fiil ne euh, amuñ dat olu te si ñoom waaw pour ñu war a mën a nekka foofu noonu waaw su lii la nag su dafa am loo xam ne seet boo xam ne loi moo ko jox président bi mu am beneen boo xamante ne is based on a moral setting so moral setting bi nag moom xam nga loolu moom euh, nit yi nit yi si loolu lañ gën a nekka di xam nga di di ñaxtu waaw parce que mais bi am na ñu fa nekk ñoo xamante ne nit yi apprécié tuñ leen dañ fiil ne xam nga waruñ faa nekk ak yooyu noonu soo dina isi debate nag ak yu demee noonu waaw waaye da gis ne ñun on suñu own moom man moom euh, since dañ téye bëgg ñu waat man always su la day wax ma ne man Euh, suma boppa laa fa nekkal ak suma constituency ak anybody koo xamante ni is pro development koo xam ne yow development moo la ñor koo xamante ni tam yow nekku ne da fa nekka pour jos luy interest sa parti okki demee noonu understand nga ñun dañ fa nekka parce que dañu saanil ka faam ñu ñu saanil kalta ay electorate si ñoo xam ne ñun we are there to represent man suma representation si loolu laa ko focus understand nga naa ëppul tam pour liggéey at anybody ko waxee koo xamante ni yow pare nga pour ñu bokk xalaat bokk jëmukaay pour a common pour ba pour am open for that regardless yaa ngi waaw so waaye baax na tam li nga wax ni baax na tam euh, euh, président bi ak ñi naataangoom itam baax na tam yeneen ñu dee déglu nit ñi tam waaw du am na yoo xamante ne you can do it on an executive level. waaye baax na tam ñu dee euh, public opinion tam daf dee count si certain things. tam waaw ñu ngi complain ne euh, ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy disable yi. Mm. waroon naa jël kenn ci ñoom. ñi nga xamante ne christian war na faa jël kenn. most definitely si muslim yi euh, imam and staff mu mm. jël fa kenn am na mm. sax démb kuñ invité woon mu ne ñoom liñ doon expect mooy mu jël ci ca bu màgget you know ah, those people. exactly understand la comme mm. teacher bu màgget wala mm. docteur bu màgget ñoo mm. xamante ne xam nga xam nga nañ ñii they are well educated suñ toogee foofu noonu mun nañoo indi idea because tey fii ñun ñëpp umpale wuñ luñ luñ xam rek ca si ñu ko xam am na ñoo xamante ne nii ba tey dañ baax nañ ñu ne mag. they deserve to be there na ci kër waaw. understand nga soo ñu mel noonu. peut-être day baax parlement mu diverse exactly waaw ñu mel noonu dañ leen soxloon trop ci parlement bi so they we are expecting will take some of those people mm. to the parliament. Mm. waaye tamit uh, people are also saying ne his excellency dafa lack of advices. Mm. loolu moom uh, I agree to that 100% I agree to that 100% I think uh, most of the time he is usually very ill advised in so many things. waaw ah, parce que am du xam nga soo taxawalee parti ah, digga la di nga xool sa parti interest waaye itam yéen ay foog nga dee xool on a broad broader scope daal ne xam nga yow you represent everybody te lépp loo xamante ni wàllum tànn la tam ñëpp dañ si war a gis seen boppa waaw ah, so dëgga dëgga ni nga wax ni dis different communities different sectors yi nii si community bi nekkuñu gis seen boppa te dëgg dëgg content content they are not they are not very impressed content nuñ de definitely ah, parce que differently able amul kenn ko xamanteni mo leen represent right now uh-huh. ah, xam nga man personally um, I'm working with Govi um, so by hell um, I'm the only politician fi the first in history Gambia fi ko xamne dafa dem nomination understand sanga anda ak ko xamanteni lagola anda ak ko xamanteni tam dafa silmaha ba pare anda six jigéen understand nga parce que man um, dama fi la representation dafa wara a ci yow parce que déjà people ñu ma doon liggéeyal on the ground so man tubuma dugal rek pour fake nit aw oh, yoy nonu dama ko dama ko present. maa ngi doon so many things ay nit yu mel do Do, anda ñom ci yu mel nii daf laa I ak ay dégg na so many things comme def ko tabu yi ni so man am nga rek man suma focusé ci dara rek man I don't believe in those things understand nga waaw an ñu doon wax loolu nonu ah ma ngi ni de ma win te ñu la andal so xam nga baax na ñu dé xolaat suñu mbiri bu baaxa baax so man to be honest um, it's part of my four point agenda that inclusion so by hell, uh, women ñu for children ñu for differently able ñu for them. tam so I'll do my level best in amplifying my voice voices for them in there But see, there's currently no representation for them Ah, woto sahel network tv doron albola juuɓe kan allah monen so programme o mi yawan kana fala erde dey ah, bi fananga felantingal lun tan kuma bala soto komin nga fala ñamin doron an ah, ko biyimɓe kacca allah kela kacca mi yalan komin ko waɓe dendi nga banque doku walla mais banku juma gambia this man cause of west africa gambia is our gambia so an tolla ñanta pour que banque woñin doku anduga banque doku walla kacca fananga an tolla ñanta pour kake because who feels it knows it uh, woto ah, a uh, ye am um, honorable nginen ka jang a uh, nyen ko eksono lam yalon ko min ka ko mata aya ah, nginen ka bayring am be yalon ko min ko a de 53 parliamentarians a uh, wol mo mollata mi yalon ko min ko nyanga gambia dingol la ye tombong walla wadi sisono nyi make a baring a lu a min kata nyanga kole a a ti a ye right di a president wala le pray praye mulul tombong baru wo fanan a nyeng a a nyanda tala nyeng silol la wala sartol be gi a nyanda a purka ta nyamin wo kata nyeng kuti mi yalan ko min ko a gambe no la a mo jama ma nyandi a baring a nyeng ay ay mol min tombong a ay wo palasol nyen dira wo mululol nyeng a a jama ya gele ko min ko a mol a tarra gere ka fami ko min ko a differently able people um, uh, ñing aning um, uh, di, di na ñatong ko mi yalan ko men um, uh, ko kristeno la muyti ñing aning a uh, musol nim funding kel a dol fanga ko ñing ko men ko ñing the business and uh, the people from the business community isaje ñing is a proper representation also no parliament to because wo parliament o mudula dula mi yalan ko men ko a luwa ka de dawol to a ko ko mi yalan ko men ko be den banku do ko walla ka commencer wolto ganda la fintela banta woto ñing a ata fana honorable abdoulaye njay ako a wo mudisi sonol te ko men ko ata tama ñiñayandi a bayri molle ɓe jeemili yalan komin ko ituta e koomale a sako a disable la ko ata niya do kuwa kele a ila ñing association e ka famille komin ko govi a govi la ñing mo boditi mi yalan komin ko ñing aɓe lorin itolle ñing itolle kuwoye ñing gambia banko kanjang woto mo mi ko ko ya baraka bake ako andum fanan he is the only parliamentarian sako komin ko when he was nominated jandiɓe carte fayla e pour a e ka parliamentarian o the a di parliament ata e minke ɗo ɗon ñinga wala ñinti ko ala campagne wato yimmoolu ka fo mi e komin koode differently able peopleol a ah, musu min tata fo ñinga a ah, musu wooro anin ah, a kemi yalan komin ko a ñinga ɓe banjul janne mool yajela ñinga kasi pus pusolo kono ani walla e campagne o ke woto ata mo molti momi yalan komin ko ñilla kuwo aha ñin la kuwo mu fennati mi yalan komin ko ñin a ñin abate sonno mo la kan andum fanan bayri a masata layata makoy le praye ka parliamentarian noti ñin praye tara wo bungo to bungo mi yalan komin decision be make la wolto so he will be there to stand on their behalf hence they don't have a representative in the parliament i think this is important and then you know i feel so excited to hear something like that from from him because he is there. Hence, you know, um, they do not have anybody there who will represent them, who will talk, uh, who will talk on their behalf. But he is there, so he can be their voice. We will be so happy. We are pleading on behalf of all the differently abled people in the Gambia, so that at least you know they can um, uh, uh be considered in so many things. Because it is definitely so sad. Most of the time, you know, uh, when you have interview with them, when they narrate their stories, you know, you cry. You know, so at least they are our brothers and sisters. They are from families. They don't fall down from the sky. So, and they belong to the Gambia. Ika fintile kela karte wala fay. Komi modol kela karte wala fay nyame. Woto imanya na nye mol manya na puruke neglect uh, when it comes in terms of our uh, decision, decision making process. They should be there. They said who feels it knows it. Who feels the pain knows it more. So, womo fenete mi alang kome ko nyang important tabaka but uh, hence albedi like, and the uh, uh, funding kills here the parliament totally. Uh, we could be alan coming ko uh, the Gambians were crying for that. That, that uh, the youths need to be represented uh, properly at the parliament. I believe uh, you will join hands together and then uh, put your political differences aside and start to work for the development of the Gambia because Gambia, no matter where we go, we must come back home. So uh, what advice do you think you have for your fellow parliamentarians? Hence, work begins now. Yeah, um, <clears throat> Uh, what I have for my fellow parliamentarians euh, mooy um, euh, liggéey bi moom euh, ñun ñoo ko bokka so um, lii moom is politics politics nag moom is normal ku si nekk dafa da nga am parti booy represent so ñun ñëpp am um, am na ñoo xam ne independence lañ comme suma maa si uh, am na ñoo xamante ni they are from the NPP ñeneen from the UDP am na ñoo xamante ni they are APRC Uh, am na ñoo xamante I'm uh, independent lañ but ñu ne they are from the North Alliance so technically they are the APRC understand nga so um, so it's, it's, it's a bit diverse understand nga so when it comes to decision making process bi moom the um, moment ñu dugga si um, assembly bi um, nañ uh, génne nañ si mimbu ba parti fële ne le ñu gis Gambia as a as a nation parce que I think it's only through loolu noonu si move forward parce que itam tey um, suñ waree téyee suñ book bi ñu waat ba pare um, xam nga rek uh, waat ne xam nga we won't be infiltrated xam nga through fear or ill will xam nga um, by any means necessary yow mm-hmm. always yow code of conduct bi nga xamante ni moom lañ la uh, moom lañ la sas yow si loolu ngaa taxaw so soo demee ba nga xam ne jël na loolu nag loolu óot la dafa diis mm-hmm. yaa ngi understand so yenn yi is quite understandable mm-hmm. yeah, it's difficult sometimes parce que yenn bir dina ñëw uh, mu am parti bo boka parti interest bi taxaw understand nga ba pare den national interest tam taxaw then you have to jungle both so it really takes bravery pour nga napa certain decisions in parliament yang nga gis gitu. so um, uh, since am um, am na ñeneen natango yo xamne ñom la bokal liggey bi pour leen rek am um, nañ gis dëkk bi rek waaw dina am certain things yo xamanteni ni di nga consider sa parti dëgg bo mom moy dominate and they are the majority waaye um, nañ make sure daal daal um, ñuy uphold suñ kàddu parce que da nga waar nga jël an oath so baax na tam nga xam ne tam ay nit ñoo la sandil tey président bi sandilu la da ngeen bokk a parti rek waaye nit yi ñoo ñoo la sandil te nit yi seen interest moom nga faa represent so ak loo mun di def ak loo mun di ñëw tegu sa kanam mégal sure lu gën a am solo mooy nga jiital si interest si nit ñi parce que ëllëg si biir tam ñun ñëpp nañu laaj tam ah biñ la dugalee fële ah, la nga doxalee ak lan lan nga fa def so tam uh, ñuy sometimes tam ñu ñuy sacrifice this temporarily àddina tam pour ñoo yaxa sa file yëpp tam fooguma ne yéen daf ko lay jar tam. Ah, definitely uh, honorable Abdoulaye Njie I I feel so uh, happy to hear that response from you ah, léegi xam nga ma ñëwaat back to Banjul the capital because ñun ñëpp xam nañ ne comme xam right now presently xam nga affaire dafa jaxasoo fii you know. Sister Linguère you know what I mean right <laughs> affaire si dafa jaxasoo waaye xam this is the decision bi nga xamante uh, the, the people of the Gambia, I, I, I can say, or the people of uh, the Banjulians um, have decided, you know, Nina You know, I can say the people from your constituency, Lola Gai wa Nina You know, I believe na kom hanga yo hanga yo soy advice hanga the Banjulians in general. What will be your advice because hanga uh, ah, legi lu wara am hanga lolu amna be pare. You know, so say ngina hanga jipon dingo la ngata kono la. soo lu war a am xam am na ba pare yow loo bëgg a mooy comme xam liggéey xam nga su ko defee xam nga ngeen mun a develop you know Gambia in general um, and also xam nga uh, Banjul you know so uh, léegi um, yow what advice will you have uh, fo the for the Banjulians su ko defee xam nga ñu mun a xam nga um, jox la loxo waaw xam nga mun a liggéey xam nga towards the development of Banjul and the Gambia as a nation. waaw waaw man daal dama njëkk a gërëm uh, sant waa Banjul especially Banjul central bu baax a baax a baax a baax uh, ndika Banjul dafa nekk political hub noonu laa ko mën a waxee waaw politics fii nii Banjul moo dee decide um, trajectory politique yi Gambia uh, Banjul la dee soo bàyyi xel am um, décision bu xamoon Banjul rek moo dee léegi tu yeneen place yëpp si dëkk bi so fii nii is a political hub fii nii is a breakthrough place boo xamante ni moo dee determine suñ trajectory so waa Banjul dama leen a gërëm di centre because for the first time am ñun yàgg nañ ñu use as political tools understand nga am nga for a long time now depuis suñ time maam yi xam nga dañoo dañoo use rek am nga dem ba am luñ bugga den waa Banjul delluwaat fuñ nekk ak yooyu noonu nii so nit yi fi mu nekk décision bii nii décision bii nekkul ne yëf yi comme Abdoulaye Ndiaye la wala dara de mhm. lii waa Banjul mhm. lii dama ko wax pour ñëpp understand ñëpp ak ñëpp ñu ñoo seetaan mhm. waa Banjul fi mu nekk dañ tollu space boo xamante ni kenn mënu leen a naxee turu xaalis kenn mun leen a naxee turu feccaaka taaju ak yooyu noonu waa Banjul dañ eewu léegi dañ xam seen soxla so ku fil ne mun ngaa ñëw use monetary monetary might or other resourceful means pour mun a lu pour am yow loo bëgga am da nga nax sa bopp nit dañ eewu léegi mhm. nit yi léegi du luñ bëgga mooy développement dañ bëgg a ak nit yoo xamante ni ñu ñu leen a représenter nu ko gars yi bëggee mhm. waa Banjul loolu lañ loolu lañ nit te foo naa gars yi dañ démonstrate nañ ko si élection su passé nii mhm. understand nga waaw dañ ko démonstrate élection su passé soo lii bu mu tax tam a certain sect mhm. comme di leen mere or something maa ngi dégg ñu am na ñuy wax ne ah waa Banjul dañ ore o oh, waa Banjul dañ li o oh, waa Banjul déedéet they just they are electorates they made a decision seen lañ am ñu dem sandil people ñoo xamante ni ñoom la gars yi feel leen mën a représenter that doesn't make them nit yu bon Understand nga? They want a better representation and that's what they manifested. Mm-hmm. Yang nga So they are not enemies to the state, they are not enemies to the government or they are not any, enemies to any political party. They just made a decision. Mm-hmm. Understand nga? They went out and voted. Xam nga? So loolu mo happen. So xam nga? Um, so leneen lu ma see teg rek um, tam mm-hmm. as um, represent, representatives of our different constituencies. Understand nga? Bu ñu gaay as comme ñun dañ ñëw pour ya yaaxal seen liggéey o yu demee noonu ñun develop collectively understand nga so ñun ñu ngi oh everybody regardless of ban party nga juga, or ndax executive nga juga from the government understand nga waaw ñun daal anything lo xamanteni luy develop suñ gox la ñun ya ëpp nañ kay leen ñu liggéey waaw ñun ah, sister Linguère um, ah, definitely man daal um, kontaan siton torop ah, si tontu yu nga yu ma tontu because um, yeah this this what we were expecting you know lolu moo mané ko na nga what advice nga did you have for the Banjulians because leader dafa nekk liggéey boo he cannot do it alone you know togetherness is power and when he have people behind him to support him then his job will be easier for him because even President Adama Barrow moom that is the reason why he have people that surrounds him so he cannot do the job alone you know no matter how hard he try when the people that surrounds him are not helping him when they are not supportive then people will not see the the good job that he is doing uh, te uh, I believe na kom hanga uh, kom comme um, ñu bëri ñu interview those were some of the things nga am um, lu gars yi wax honorable Abdoulaye Ndiaye loolu moo hanga nga mën na si biir wax bi ne comme um, am nga liggéey te time yi jotna, and I have reasons of saying it Gambia understand nga liggéey jot na so xam nga mu ngi nii xam nga ñun ñëpp nga gis nañ ko xam nga si various social media platforms ne ko xam nga banjul yéen sa nga ñoom dañ nekk ñoo xamante ne suñ la buggee bugga nañ la waaye suñ ne déedéet daal xam nga déedéet la so xam nga loolu xam nga they have proven it and uh, they said the reason why they did that it, it was because of that leadership you know at the bureau so xam nga yow tamit xam nga yaa ngi fa yaa ngi fa and you should know that xam nga so many eyes on you there are so many people ñi nga xamante ne comme nga gars yi dinañ la bàyyi xel and then xam nga if you also do the same mistake um, nu gars yi bàyyee ñële xam nga the same thing will happen to you God forbid but xam nga leadership dafa nekk loo xamante ne comme xam nga when we are there we need to be so much mindful te xam nga am um, loolu moo ma am happy I am happy um, uh, uh, honorable lii jàngat la li tax jàngat la mooy su doon you are the first person di nga wax ne yaay am nga problème parce que xamuloo exactly liñ bëgg ak liñ bañ waaye this is not the first time ñuy nominate nit Banjul te gis nga ñi fi ñi fi daan nekk li tax ñu folli leen kon yow loolu danga ciy jàng ñoom li tax ñu folli leen yow nga def lii tax ñu bala liggéey bi nag dëgg la benn nit mënu koo yóbbu in faut nit ñu ne tiim àndandoor. waaw waaw. il faut nit jàppale la. il ñëpp jàppa si ñu su su ne team àndandoor du team maam laay bi ni yooyu noonu. team àndandoor mooy de entire constituency yëpp ah, ñooy jàppa si liggéey bi ñu mu. waaye euh, waaye tamit. Euh, suñ demee ci parlement bi yow kenn yaa faa nekk. yaa ñu faa représenté. may seen mouthpiece waaw <laughs> léegi euh, ci biti ñun dinañ def suñu wareef. comme tey ñun ñu ngi def li nga xamante ne nii ñun tam ñooy suñ Euh, waalo ci yow invite la ñëw toog waxtaan ak yow understand ba so if there is something else loo xamante ne nii keneen mën na koo def ci wàllu xaalis mm-hmm, mm-hmm. ci wàllu bagage ci mm-hmm. wàllu lu mu mën a doon let them come in numbers because tamit wax dëgg yàlla moom kenn mënut a yóbbu mbir mi so in foog tamit comme ñun ñooy oyee suñu boppa banjuliens ñuy ooyee suñ boppa Gambians I think we should help him so that at least he can you know uh, go ahead with whatever he is trying to do so ñun tamit liñ mën a wax rek mooy ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan ak fu waaye mën a nekk ci àddina bi même su nekkee yow doo waa Banjul maam laay neex na la honorable you can just you know uh, uh, nga saani ko loxo xamal ko ne ko ah man kat lii dama ko def ngir dimbale la ngir gis naa ne ndaw nga waaye yaa ngi góorgóorlu bëgg a dimbale Banjul bëgg a dimbale Gambia so loolu ñu ngi ko pledge into each and everyone outside there góor ak jigéen lañ ci emale rawatina ah, yéen ñi nga xamante ne nii comme ni ma koy waxee yéen la seen loxo jot seen ginnaaw ah, bu leen bàyyi ne ah, su ma defee dañ maa catu su ma defee dañoo wax ne dama am kenn amut yàlla rek a am lu fi waaye am dañ la ko dénk ëllëg ëllëg ëllëg ëllëg mun nañ laa ah, jébbal sa borom te booy dem doo yóbbuwaale dara ci loo xamante ne alali àddina la dénkoon na la ko kon lépp loo xamante ne yàlla dénk nañu ko rek nañ ko fas yéenee génnee ah, jëflante ko ak suñu morom yi doomi aadama yi balaa kii ngi mi toog si ba bëgg a dee doo leen ko fal <laughs> ah wala ngeen ñëw sponsor bi <laughs> lu dal dëgga la nga black queen xam nga mu ngi nii toog nga strand xam nga ba bugg a I know ya du mau wax bos a ah, sister linger a ah, ye min fo janga ah, keta kuma kanna temi yalan ko min ko akum mata bakele a woton tola sahel network tv kontanta bakele a honorable abdoulaye ndiaye a fo honoring our invitation a because a ngamera ko nyin ko min ko a yang kacha mo nanti mialang yalan ko min ko nyin a namang a min deda nyin ata wotinya Kamu la ke musise ke musise wow Ah, keɓu sise ñinga anim ah, ah, fatmata sow itol mun na facebook a folo wallati ngal tentugal jeyi albasa helnat wom tv juuɓe kan ñaami ñin temɓen jaabi baba nuyu nañ la bu nge seetaan hanga ñin taymo aɓe sahel network tv juuɓe kan dorong ñin commin sister Linguère ka fo ñaamin dorong commin ko without you people hanga will not be here so tey moom hanga dama naa jël hanga si loxoom lu ma No, no, no. I have to do it because I'm holding the mic. The mic is mine now, not yours. <laughs> um, Honorable, I'm um, definitely on behalf of Sahel Network TV, uh, we are saying thank you so much uh, for honoring our invitation. Uh, because um, um uh, dañ fi waxtaan uh, waxtaan boo xamante ne dafa important torop and I believe uh, the amazing viewers uh, out there xam he is Honorable Abdoulaye uh, Ndiaye a National Assembly member la xam nga koo xamante ne lu fada momenti a ñu ko min ko development o yena ngal dum do kan duba development o yena nyen gambia ko kan because mo moron dim be national assembly nyen temben na nyen ibeje gambia le because nin jan developta jambe gambia la kono woto anyen a itol mum mollete mi yalan ko min ko nyen gambia nyaal la muyti gambia singol la muyti gambia la muyti ni amoy gambia dorong national assembly la nin gambia developta mba fala la ko min ko national assembly members ni filter in any way mbafulay coming ko national assembly members so you people have a big burden on your head Lord, ngan am ci seen bopp yi xam Lord, load load load bi nga xamante ne comme xam nga xam naa dafa diis um, you need human resources to support you you need financial support you know you need technical support Hanga nga ñi nga xamante ne ñoom xam nañ ne comme xam nga yàlla daf leen may uh, xam-xam bopp bi nga xamante they can guide him uh, moom dafa nekk uh, nit koo xamante ne xam he is down to earth and he is ready to listen to anybody so um, his doors are open because development hanga loolu la bugg isi in the Gambia man hanga noonu laa koy waxee because I'm seeing the bigger picture you know. I have a small message for you Abdoulaye Njie. Uh, honorable. <laughs> honorable um, honorable <laughs> nuyu naa la nee nga Ndella Linguère la <laughs> honorable ay <laughs> eh, honorable boo demee parlement waxal ma ah. leen ne Linguère mu ne waaw ah price control war am ci réew mi de dinaa ko wax de incha allahu rabbi uh, dinaa ko wax de incha allahu rabbi ah draft constitution bi xam nga uh, dafa nekk constitution boo xamante ne ah the you know ah, mooy a ah, national mem ah, assembly member si nga xamante ne ñoom ñu ngi fa woon xam nga hmm. dañ ko vote out so support ko waaye ñu bëri ñi nga hanga nga knows the content what is in it hanga hmm. nga believe that ko xam nga dafa war a a constitution boo xamante hanga xam nga loolu la Gambia war use legi, a ñu take xam nga constitution bi nga xamante ne moom moom moo fa 1997 constitution bi mu nekk loo xamante ne so many people are talking about it and I believe na comme hanga. I don't know if you will be part of the people ñi nga xamante ne uh, you you will vote in uh, uh, that constitution su ko defee hanga, then our work can begin properly in the Gambia what do you think? yeah most definitely parce um, even during our campaign xam um, it was part of things that we've been issues that we've been you know using throughout the campaign parce que dañ feel na da constitution bi dafa important trop parce que xam nga rek xalaat yi ñëpp ñoo si dugg ñoo si ñoo si dugal yaa nga gis so do am nañuy make arguments ne am na provision su fa nekk yoo xam ne moo determine why they voted it but still man lu ma wax rek mooy let's open it let's take a look at it xam nga still nañ ko xoolaat ñu scrutinize ko waaw ñu review ko um, anything loo xamante ni fil nañ ne nit na pour xoolaat wala pour génne ñu seppi ko rek ba am luñ bëgga then we pass it then xam nga at least it's a it's a first step towards having a uh, uh, so yeah parce que there are certain um, laws yoo xamante ni uh, dinañu jàppale trop as a as a nation so anything loo xam ne tam dañ si am ñaari xel mun nañ koo xoolaat de scrutinize ko. that has to do with corruption tamit xam nga man loolu dafa loolu dafa the anti corruption bill mi ngi nii di xang boobu tam ñu ngi ko war a paas the anti corruption bill mu fa te loolu tam is a first step towards xam nga holding people accountable so those are all things yoo xam ne so comme na ko waxee we have a lot of work to do And uh, these are all welcome, things we will be raising uh, there, Mr. Jabi uh, Baba you are welcome thank you so much you also welcome di nuyu ki nga xamante ne moom mooy Papa Ndiaye mm. foofu ci diwaanu Master Banjul ñu ngi nuyu képp koo xamante ne mu ngi Master Banjul rawatina sama yaay Mominatou Diallo ak képp koo xamante ne nii rek say xarit lañ foofu maam Cheikh fàttewu ma la benn yoon ñoom Cheikh Diop borom ñaw yu naay si maa ngi leen di nuyu bu baax a baax macha allah ne damay dellusiwaat si honorable gis nga boo demee parlement waxal ma leen man ma ne rent yi ñoo yokk fuñ ko teg. waaw xam nga Gambia comme na ko waxee price control amut fii nii is an is an open is a free market. free ma free market zone a ñu ci mën a dimbale de. waaw mën a xam ngeen ko. noonu dinañ si wax moom incha allah xanaa tam ñu try nguur bi tam di ñu déglu dinañ si wax moom. man daal dinañ si wax de incha allah waaye daal def leen ci seen. kéem tolluwaay um, kattan xar lañ ci seen. waaw parce que at least su nekkee ne Gambia is too ba pare. am na certain things yu happen yoo xam ne comme let's say war on Ukraine bi waaw to honest daf dee di determine am price lifin bi price altercation si within aduna bi yëpp globally but still I think as a nation yu mel ni daf ñu war di ee parce que tey su nekkoon ne ñu ngi utilise certain resources suñu am géej beeg understand nga yaxali pacca beeg ak yooyu yëpp yaakaar naa di ko advocate at least nañ doon mën a am xam nga dara lu ñoo supplement sax at least at least tam su nekkoon ne bagage yi ngay jar lii nii am na things suñoo produce internally nañ ko doon mën a am na in a certain price boo xam ne it will affordable to the people. ak yooyu so yëpp stratégie la rek yëpp stratégie la rek. so uh, hopefully like I um, always say uh, ñi nga xamante ne ñoom lañ amandooral independent. ñep dañu ñep raw nañu definitely nit ñu rawé sa dafa ñaaw definitely definitely dafa melni nga ne guddi ak <laughs> bëcc definitely ñun ci lëndëm lañu jëk ñom ñu nekk ci lèr té definitely ñom development biñ def ci seen dëkk war nañ ko mëna def ci suñu dëkk té loolu government bi ñoo ñu ci mëna dimbalé ñun ñu fék excellence waye they are all ñom ñep they are there for their pockets so mo tax development du mëna gaaw am gambia understand definitely man dama gëm ne dañ wara try ñu develop gambia gambia should be developed yeah. country first here. Yeah, uh, Gambia lañ am. Uh, Gambia is a country bi nga xamantene ñun ñoko mom, ñun ñoko boka uh, ah, despite our political uh, affiliation. Uh, lolu dal be pare nga tribalism tamé nga dafa nek lo xamantene comme nga so many people nga they should put it aside. Ñu gis Gambia, just Gambia, ñun Gambia lañ am. man suma suma fi jógee sax xam nga because demoon naa America su ma ko waxee dag ma dee xool demoon na China xam nga dem xam nga si ah dëkk yu bëri xoolal mo bu mu maa xool <laughs> yow doo xaar ma continuer nga ma wax waaw ci Cissé xam nga nuyu nañ la ah, thank you so much for following Sahel Network TV sista Linguère yow lii lan la nii lu tax nga ma def nii wax naa ah, la man dama woon ah. adduna bi yëpp nga ñëw tok Sahel Network TV loolu laa ko ñëwaat ma ko bëgona wax sa suy demaan mu yóbbu

dal a woto ñingan kontante bakelay a ñin biranata jannayi ñin kacca baso basoto ando ngatol min fana yalon ko min ko a ñin tembe ngatol le hel sahel network tv juube kan a ngaji ko min albe kontante le because ko la fata jang a mi yalon ko min ko mafo senegal mafo casamance bare nga gambia la fo a because ntole gambia la soto a woto sayembe min kala dorog a ñingan be may ko dirara because a ñanta ka min be kacca jang a nin ko mba ñin a nin ko mbaw be fola bi dorong a ñin ata benna because nga a ñin story do do a sotali yele mili alon ko min ko anyanta pour ka nyanga di alla jarina programme nyi babanna woto mbafula honorable abdoulaye ndiaye national assembly member for uh, banyu central uh, ife sarodino molala sai andong kontanta ba kene la kuwala denga nako yow dega nga xolal dang de dega sosa way do ko de muna laka xam ko wow, waaw pour nga yo, ak nim man ni ya yeah to say goodbye hay ki bandi la ndongo okay, okay. ko faale okay so um, a goodbye message mm -hmm. um, yeah um, so luma wax rek ma ngi delu di gërëm rek uh, wa sahel network uh, si njitali uh, Mr. Bachili ak uh, um, natangom yi mbokk liggéey bi yëpp mhm. suma sister Black Queen machallah Oma Sen Fay ah wow. Della Linguère machallah ah suma sister machallah nga xamne mom mom waaw moom moom special place laa ko teg definitely waaw suma ah, sista yu suma a ah, waaw suma ay sista nii bu leen gis fone bu leen fone ah? ma déglu ma hmm, hmm. gis naa ne daal man daal xaw ma lu nekk di xamul de ma daal <laughs> waaye mooy neexal programme bi tam mooy neexal programme Ah? No, non non yow mom mm. xam naa gars yi duñ bëgg a ma wax ko on live TV. but but she's a humanitarian actually. she she volunteers in the hospital, helping the elderly, understand nga, and the differently able, and using our own using her resources, understand nga. financial resources. Understand? I'm using her time and energy in helping those that are in the hospital. I don't know if people know about this. So, bah na ma wéjala si si si télé bi. Wa du dé bu wax nak, but ku soxla ku soxla ñaan la tam. Um, uh, she's a sister I dearly respect definitely. Parce que lu mo def nonu, it takes courage to do it. Suma mama yi nga xamanteni ñun mom ku ñu joxul dara moom sawar si dara waaye mom mi ko def te wax dëgg te yàlla rek tax mom waaw wax dëgg amuñ fayam mom so pour ngeen understand rek dafa am lutax ma ñaar ñi ni they are very unique personalities so wa Gambia man tam ma ngi leena naa ñaar ñi mm-hmm. um any form of support tam si network bi ak ñom pour gëna enhance sen liggéey bi mm-hmm. inshallah allah ngi ñaax ñep ñu jappasi si so allah gisee ñom suñu oyee rek ñu sawar pour uh, donte du yefi dara sax yefi TV bi but um, ñom nuñ mel nuñ mel la they are they are very unique personalities so ñun tam dañoo sawar sen bir bu baax so pour tej rek um, ma ngi gërëm di sant rek wa bañu Central yépp Euh, di wax ne ñun comme we are open ñun ay ay ay ndaw lañ um, ak luñ mun di xam tam luñ xamut moo ëppa so any we are open for advice we are open for um, mentorship of whatever capacity any one koo xamante ni fil nga ne am na si loo ñu mën a yokka um, our doors are open understand nga any one tam koo xam ne am nga anything any developmental initiative uh, pour uh, Banjul Banjul or for Banjul Central specifically, or generally as Gambia as a whole, we are open okay. to we are open to, open to work with everybody. Understand? We are open to work with the government. We are open to work. Uh, we will be working with the city council. Mm-hmm. We've, we've been working with the city council even okay. prior to being a parliamentarian. Okay. So Banjul City Council mom suñ kër la. Understand? We are also open to working with any relevant stakeholder ko xamanteni uh, bëgg na um, accelerate development in Gambia. waaw di leen dénkaat suñu boppa euh, di xam benen beneen yoon incha allah. waaw. <laughs> Ah, thank you so <laughs> much ah, woto ñembafale ah, coming ko honorable Abdoulaye ndiaye thank you so much for being here with us it was um, an um, amazing moment you know and I believe our amazing viewers out there hanga ñen keta watol tit ñen wato mi yalan ko min ko ñanga ñangal se wota bakele annum fanangale kibarol soto kibarol mi yalan ko min ko ñanga mo yodiyata mm. tuloye bakele woto mbafalay ko min ko alama masaka la ya sutura aya tanka nyinga palaso min fana ya lon ko min ko nyinga nyinga banjun kol ay jiko suta ya diala nying fo nyinga sa sutura kan andum fana do ko ni so na ya nyinga bulo ko na nyomo yo nen kambe ko mi ya lon ko min ko ala kumata bakele nyinga atane moltema ala ma we ka fenti mi ya lon ko min ko ay ka nying kuti min be kontine la wota mbafale ko min ko hande bol abdoulaye ndjay a ngamera be saro dila nyinga ya ni tabe saro dila nyola nyinga nyin tembenna a wiul habe sot commercial break ne murtan dorong the program continues. Stay connected. Don't go anywhere. We are just saying bye to him. Thank you. Just a short commercial break. We'll be right back.